ndax ñu xam ne fi ñuy waxee xam nga bidaa ci baatu kawlaam ak arab bu ñu ne bidaa mooy lu yees du caagi ni lépp lu yees lu ne nag ci diine la nekk maanaam lu sosu lu ne du caagi ni ci diine la nekk am na yu sosu yoo xam ne bokkul ci diine bu dee yi nit ñuy jariñoo ci seen i lekk ak seen naan ak seen col lu leen neex mën nañ koo sos foofu waaye rek bu mu doon loo xam ne lu sharia tere la la ñuy naan bu mu doon lu xaraam la lekk bu mu doon la ñuy solit bu mu doon loo xam ne dafa xaraam ci ka koy sol su loolu amee rek buntu boobu lu leen neex sos leen waaye nag bu dee ci wàllu nag diine la sosu ci diine ki ko sos jàppe ko ak jaamu yàlla bu ñu wutab yool tuyaaba loola mooy biddaa sosu na mooy lan mooy amul woon ci jamono yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam suñ délsi woon fekk nit ñi di ko def dañuy laaj ni ñi li ñuy def lu mu doon loola mooy la sosu moo tax tur wi ko mën a jox lu dul woowu rek mag ñee ko fi indi woon ak yooyu yëpp taxul mu bokk ci diini ji saa baay ak saa maam ak maami maamaatam ak ñooñu ñëpp boo leen xoolee eh, dëgg la ay mag lañ ndax ku la sut nga ne ko njool mi loolu wolof yi wax waaye nag boo leen xoolee ñoo saxaaba yi ñooñu ñooy gone yi hmm? ñooñu ñooy gone yi kon mag ña man ña muy ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaroon leen lañ xam te doon ko dund loolu mooy diine la tax ñu am loolu ñoom it kat du dañoo doon ay yonente wala dara waaye yonente bi da leen a yar bañ jub ba jaar siraatul mustaqim ba yàlla taskiyaal leen boppam nit ñi baax nañ fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw loolu kenn mës ta dégg lu ko gën a baax yéen ñii toog ànd ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñëw suñ gëmee ngëm gu mel ni seen gëm yéen ñooñu jëndiku nañ loolu fi lañ mën a yem kon ñooñu ñoo baax ñooñu lañ xam loola mooy diine liñ xamul loola bokkul ci diine mu des nag ñaari masala yoo xam ne war nañ koo xam ne fii mooy dafa am yu nuru ak biddaa xadu biddaa yooyu bokk na ci li ñu tudde al masalih al mursala bokk na ci li ñu tudde as sunnatul xasana as sunnatul xasana nag ànd ak ni ñu xam sunna moom lëndamut ci ñoom waaye ñi xamul sunna ñoom lay lëndam ci ñoom wala waa bi daal di ko jiima yëlëf ci nit ñi pour poussière bi fat seeni bët ba duñ mën a gisati sunna assunnatul xasana yonente bi salallahu alei wa sallam xadis ba nii la tëdde ay nit ñëw nañ ci jàkka ji julli ba noppi yonente bi alayhi salatu wasalaam ñi ñëw di ko nuyu mu gis ci ñoom ñàkk gu metti ñàkk gu feeñ ci seeni melokaan feeñ ca seeni sër yonent bi alayhi salaatu wasalaam kanam gi lëndëm lool ndax bëggul ab jullit loru mu taxaw ca minbar ba daal di xutba soññee ci infaq fi sabilillah mu joxe nit ña tàmbali di joxe bilaal radiallahu taala anhu daal di lal malaanam nit ña di ca sànni ñii sànni xaalis am ñuy tekki sax seeni jaaro di ca teg jigéen ña sax am ñuy dindi seen jaaro nopp ñëw di ca teg ba mu yàgg kenn ci ansaar yi daal di waaxu dugg këram indi takk boo xam ne takku xaalis la daal di koy teg nekkul woon ci xeli nit ñi ne mën nañoo dem jëli dañoo defoon ne rek kenn ku ne da ngay joxe ci li fi nekk ah kooka nag ba mu defee loola ah nit ñi ne ah kon kat mënees naa dem ci kër gi jëli keneen daal di dem moom it jëli indi keneen jëli indi ba mu yàgg malaan mi fees ñu gis xar kanam yonente bi sallallahu alayhi wa feeñ fés mu daal di dégg kontaan alayhi salaatu wasalaam dal di xool kookee nga xam ne moo jëkk a dem jëli ña ca des ñëw jëli indi mu ne ah ku tër ci lislaam day tër boo xam ne bu rafet la kooku walahu ajruha wa ajru man amila biha la yawm alqiyama foofu li ñuy xool pour dégg xadis bi yëmut rek sax ci xam sabab bi tax xadis bi yonente bi salallahu alai sallam wax ko waaye fi mu wax ne man sanna fi lislaami sunnatan xasana maanaam sunna boo xam ne bu rafet la baatu xasana boobu fi lañ war a taxaw xool ba xam nu mu rafete maanaam ku sos ci lislaam loo xam ne lu rafet la lu rafet ci lislaam mooy lan ndax mooy li alquran ak sunna rafetlu wala mooy li nit ñi rafetlu ci seeni xel ku la laajoon foofu rek yow looy tontu lu rafet ci lislaam du mooy la xel rafetlu xel mën naa rafetlu te fekk lam rafetlu rafetut loolu moo tax doomu aadama seen xel bokkulu kii day xool li wala jëf ji ni lii de lu baax la lu rafet la keneen ñëw ni loolu di baaxut d' accord mu ci baaxut boo ko laajee mu wax la lu tax baaxut fi moom kon xel yi dëppoo wuñ ca genn nit ki ci boppam dara day rafet fi moom ba mu yàgg kenn kuy seetlu sa bopp ku ne da nga gis loolu loo xam ne rafetoon na nga doon ko jëfe di dox ba mu yàgg nga ne ah loolu de si naa koo def te mel na xel ne kon xelum doomu aadama diine nekkul ci xel waaye diine fa mu nekk mooy texte mooy ñëw ne rafet na kon wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunnatan xasana mooy sunna boo xam ne rafet rafetlu na ko su fekkee rafet rafetlu ku sos ci lislaam def loo xam ne sunna daf koo rafetlu dafa rafet ci alquran wala mu rafet ci sunna kon loolu mooy doon loo xam ne dafa rafet te lépp loo xam ne alxuraan ak sunna rafetlu na ko nga am ca dalil bu wane ni lii daf koo rafetlu kooku génn na ci cadre bidaa dugg ci cadre sunna ndax am na dalil ndax am na dalil su fekkee ne nit ki def na dara loo xam ne xel yi ñoo ne rafet na te loola lislaam ci boppam rafetlu wu kooku mënta rafet lu ñaaw lay doon ki ne rafet na léegi nga gis keneen ku ne ko ñaaw déggit boobu suñ ko déggee lool rek boobu xadis day leer beneen bi ci des bi faral di lëj mooy al al mursala mooy ñetti mbir mooy leeral al masalih al mursala pour ñu xàmmee ko ak ak biddaa al masalih al mursala nekkul ci jaamu yàlla yi waaye ci moyen yi la wasila bi ngay jëfandikoo ngir jaamu yàlla ci la foofa lañ foofa lay sosoo foofa lay sosoo chartu al maslaha al mursala ان تكون في الوسائل لو موي توب بو جيك مانام لي ني جيفاليكو ني موم سي بوكم دو ميكروفون بي موي جامو يالا كي وايي موي لا بو خاني نيت كي دا كو جيفاليكو دي جامو جالال اك جامو يالا دا سي جالال اي القران دي سي جالال كونفرنس دي سي جالال نوبدام كون موي لا موي بوبو كون فوفا لا ني واخ مصلحه مرسله واي دو دون سي بير جامو يالا كون جامو يالا من اسباسوس دارا موم moyen boobu nag ñaareel bi mooy na bañ a am dalil boo xam ne daf koy saxal wala dalil boo xam ne da koy tere mooy ñetteel bi maanaam laysa hunaka dalilun fi ha wala dalilun fi ilghaiha moom wasila boobu amul dalil bu koy saxal wala dalil bu koy tere suñ jëloon microphone bi ndax am nan xadis bu ñuy wax ne jëfandikoo leen ak microphone waaye ndax am na xadis bu koy tere ñu déedéet ndax moyen la ñu ne waaw beneen bi ci des nag mooy bi ci ëpp importance mooy ñu xool ndax am na maslaha charia ndax am na intérêt boo xam ne ci charia lay dellu waxuñu intérêt doomu aadama yi waaye intérêt boo xam ne ci charia lay dellu dinaa am na intérêt buy dellu ci charia kat ndax nit ki mën na ci jàll jàllale conférence am mën na ci jàng alxuraan yi ci des di déglu mën na cee noot ñu loolu de intérêt charia la ñu ne kon kii charia dal na koy nangu ndax ñeenti condition yépp daje na ci kon nit ki lu mën a sos ci buntu boobu na sos ndax maslaxa mursala la tudd ci moyens yi la dugg waaye duggul ci jaamu yàlla yi amuñu texte bu koy digle ndax suñ ko amoon kon muy sunna duutu tudd maslaxa mursala amuñu texte bu koy teree ndax kon mu doon luñ xaraamal wala luñ sib te am na intérêt charia su amul woon intérêt charia kon du mën a dugg si du mën a bokk foofu kon ci ab gàttal daal ànd ak ne bunt boobu yi ñu fi war a mën a wax bari na waaye euh, sunna ak biddaa daal lu yomb a xàmmee la ñi koy jàng xàmmee ko lu yomb ci moom la dari nag man li ma seetlu ci mboolem méthode yi nga ko xam ne ñu ngi koy jàng ci wàllu sharia ak bunt boobu itte ji ñu ko war a jox dëgg-dëgg joxuñu ko moo xam ñi jàngale ci ay xalqa moo xam ñi jàng sax même ci université yi dañu ci ay université islamique yu taxaw yoo xam ne jàngale lu jëm ci sunna ak bidaa loolu taxu leen a taxu leen a jóg maanaam tàqale ko mën a xam lan la lii lu mu ak lii lu mu joxuñu ko itte ji moo tax nit ki mën naa jàng ba njàngam kawe lool mu dese ëllëg foofu kon bunt la boo xam ne maa ngi dénk sama mbokk yi nga xam ne eh, ñooy jéem a jóg di leeral dara ci diine ji buntu sunna ak bidaa ñu ne ko boroom xam-xam yi bind nañ ci lu bëree bëree bëri loo xam ne ku ko jàng bunt boobu dana leer ci yow téere bi ci gën a fës te gën cee jege loxo yi nit ñi mooy euh, al i'tisaam bu al imaamu Shaatibi téere la bu mag boo xam ne ku ko jàng bunt boobu yàlla mën na laa defal tawfiq am na téere yu bari yu ko jiitu yoo xam ne ci bunt boobu lay wax ak yoo xam ne yu ko mujj lañ bunt boobu daal bu mat a jox yittale ci wàllu njàng ak xàmmee ndax ñii la demal ci bunt boobu bari na te ñi mën a taxaw ci seen kanam leeral ko néew na itam naam هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى